Euh, tu es un citoyen alerte nga xam bu baax a baax da ngay xam ne da ngaa war a taxaw takku lépp lu mu laaj rek nga def ko te loolu la ñu gis en fait ñi nga xam ni xam nañ réew mi yëpp fi mu toll ak ni muy doxee ak orientation yi nga xam ne ñi yor réew mi tey jël nañ ko depuis ñu toog ba tey dañoo wóor ni réew mi fi mu jëm baaxut. dañoo wóor ni réew mi bu buñ suñ toogee seetaan non non tey xam nga xam nga <laughs> xam xam nga xam nga xam nga suñ bàmba doo bàyyi ba mbir mi dem ca ca cappaandaw ga ngay soog a jug boobaa joyante day wees garab boo ko joyanti ca ca tàmbali ga nga ko joyanti waaye doo xaar ba garab gi jug ba taxaw nga ne da koy joyante c'est-à-dire li ñu daloon ci Macky Sall mooy dañoo bàyyi jusqu'au terme de son mandat ñu bëgg ñëw nag indi ay ay ay ay ajustement boobu doonul mën a nekk nit ki day toll ci pouvoir foo xam ne fi mu toll nii maanaam langaamu ci nguur gi rek lay bëgg fexe nu mu nu mu nu mu nu mu jëfandikoo nguur gi nu mu bañ a bàyyee nguur gi loolu moo tax ñi nga fii fii alternance toll ak ak ak ak li ma wax léegi renouvellement du personnel politique ak euh, ak ak ak ak ak réew mi li mu soxla fi mu toll nii mooy lépp lu jugati rek ñu teel ko xool saytu ko ba nga xam ni bu walaajee joyante rek ñu teel koy joyante dès le départ nga xam ne duñu ñu bàyyi ba au terme wala ba mu dem ba nga xam ne béy way na mbuus ngeen jug di coow boobaa ay këréel politique rek lay indi da ngay wax bay bëgg a dee waaye du tax kenn def dara du tax ñu mën a soppi dara parce que day fekk boobaa euh, li li li wees wees na ba noppi moo tax ñun responsabilité bi ñu am tey malgré qu'ils ont fait sept mois dañoo bëgg vraiment taxaw gunge leen ñoom la ñuy gunge en fait ñoom la ñuy dimbali lépp lu pas bu ñu teg rek ñu mën a ñu mën a saytu bu baaxee ñu ñu ne leen waa góor wéyal leen bu fekkee nag gis nañu lii dëppoowul ak intérêt Sénégal ñu teel a mën a am pouvoir boo xam moom lañ koy joyante mais ku mel ni Pape euh, Pape Djibril Fall jàppale na c'est le gros perdant. Hmm. Euh, ci prix forest euh, tey nga dem ànd ak ñoo xam ne dégg naa sax gis naa benn vidéo bu Assane Diouf doon wax yu xaw a moom tey moom lay àndal est-ce que nekkul mooy le plus grand perdant de cette coalition. xam nga coalition bi actuellement ñi ci bokk ñëpp kenn ku ci nekk dafa am loo bàyyi ngir def dara. maanaam euh, le président Pape Djibril Fall loolu mooy spécialité en fait c'est ce qui c'est ce qui le particularise euh, des autres hommes politiques mooy moom bis bu intérêt général taxawee rek day nangoo fàtte boppam tey même position bi mu occupé ci ci biir coalition bi. mais intérêt général kay mooy nañu gunge ñi fi nekk waaw mu ci lañ nekk wax naa la gunge nee naa la ñoom la gunge. ah non gunge <laughs> la plus belle manière de les accompagner. c'est ce qu'on c'est pas favorable à du Sénégal. waaw mais bien sûr bien sûr te loolu noonu. ñoom te noonu ñoom ñoom xam nañ ko bu baax. donc donc donc Bamba li ma bëgg wax mooy. le président Pape Djibril Fall saa yu su intérêt général taxawee rek moom day nangoo fàtte boppam ngir maanaam li nga xam ni moo war a taxaw ñu jàpp ni moo war a dimbali réew mi. wala moo war a taw réew mi loolu mën a taxaw xam nga bu fekkoon dafa nekk koo xam tey jii il est imbu de sa personne du mës a nangu nekk nekk septième place sur la liste. parce que bu fekkee en terme de de de de euh, de de de résultat euh, dem na dem na élection législative dem na élection présidentielle ni nga ko waxee élection législative gis nga ni mu ci génnee. ak malgré obstacle yi nekkoon yépp élection présidentielle aussi mu dem ci moom kese amul benn machine wala benn appareil bu nekk ci ginnaaw malgré avec ses maigres moyens. il a réussi à faire quelque chose. mais il bi nekkoon cinquième cinquième cinquième sur la sur la liste sax. Pape Djibril Fall président rawee na ko 3000 voix donc moom euh, yooyu yëpp malgré tout ça dane wax dëgg bu ñu fi naree nekk ñun ci suñu biir war a defar liste rek nar fay nekk di coow ba mënuñoo d'accord suñ biir kon nañ lem suñu bagage dem toog te xam ne ñun bu ñu mën a dimbali réew mi moo tax moom à chaque fois il est prêt à laisser quelque chose il est prêt à prendre sur lui-même beaucoup pour que euh, ñu mën a taxawal ay plateforme wala ay ay ay ay ay ay kuréel yoo xam ne ñooy mën a dimbali Sénégal ci ci góote yu ñu nekk. donc mhm. loolu loolu mooy moo waral engagement ak dugg yi mu dugg si biir sàmm sa kàddu donc nekk fa encore une fois pour sutante mbagg ak kenn mais lim li ko fa yóbbu rek mooy xam ne ne fii ñu jëm nii maanaam du guerre boo xam ne day nekk guerre individuelle dafa laaj nit ñi joxante loxo boole seeni doole ngir lii ñu mën ko jubbanti ndax ndax ndax ndax li ñu li ñu dëgmal nag dafa laaj mbooloo mu takku ay jeunes. ak ay mag ak ay soxna ak ay ndaw yu yu am pas-pas yu taxaw yu am xam-xam am xarañteef ñoo mën a jàmmaaral li ñu nekk pour mën koo jooyanti. Mhm. peut-être que dina bàyyi jooy ah da ngeen xale di ko tooñ ne dafa yomb jooy non moom jooy moom je crois que <laughs> yërmande gu la. xam nga ah, xam nga xam nga xam ne kii nga sawul si nga jooy aussi. dama xam nga xam xam nga Bamba. Euh, am na loo xam bëgg naa ko wax ma saisir occasion bi sax. Euh, parce que dafa bari ñoo xam ne léeg-léeg sax ma seetaan ko parfois sa plateau bi la ñu ay chroniqueur bala des soi-disant chroniqueur ay nit yoo xam ne. non la ñuy waaw waaw waaw euh, <laughs> moo tax man dama bëgg a wax sama xalaat li ngay wax rek. moo tax ma bëgg a wax sama <laughs> xalaat. moo tax ma bëgg a wax sama xalaat ci ñoom. donc euh, ay nit ñoo xam ne euh, ñoom seen àdduna yëpp dañ koo bëgg a jàppee di maanaam nekk ko ci gor yi Pape Djibril te ñoom ñi koy wax ñëpp damaa seetlu ne ñoom bu ñu amee xel tuuti bu ñu xalaatee tuuti rek. danañ xam ni président Pape Diouf Fall raw na leen lu bari ndax ñoom ñiy wax ñëpp ñaar benn euh, ñooy mag Pape président Pape Diouf Fall wala ñu tolloo ay at. Mhm. ñi ko mag nag ñoom war nañoo questionner ñoom ba ñu am euh, at yi président Pape Diouf Fall at am ñoom fu ñu nekkoon ak ci lan lañ nekkoon loolu mooy la plus grande question da ngay gis euh, quelqu'un comme suñ Saliou Guèye nga xam ne kilifa la. on lui on lui on lui on lui doit beaucoup de respect tamit respect boobu lañ ko jox mais mu ne Euh, il est déçu de Pape Djibril Fall parce que ceci parce que cela mais ma koy wax ni bu fekkee moom il est déçu ñun ñu somme dégoûtés de lui. ah xam nga lu tax maanaam ñoom muy euh, Serigne Saliou yi muy Baara Cheikh Baara yi muy donc tant d'autres ak les chroniqueurs yi nga xam parfois nga gis leen ñuy dal ci kawam di acharné wu ci kawam maanaam ñoom ñëpp koo ci jël. Euh, tey jii li président Pape Djibril Fall def wax naa ko léegi duñ ko def mooy nañ questionné ñoom ba ñuy am at yi président Pape Djibril Fall am ci lan lañ nekkoon ak fan lañ nekkoon loolu mooy bi njëkk bi bi ci des mooy euh, président Pape Djibril Fall wax dëgg yàlla ñoom ñëpp waroon tàcc ko félicité ko jaajëfal ko ndax ba mu duggee ci politique ba tey kenn mosu koo dégg mu wax wax ju ñaaw kenn mosu koo gis mu jëf jëf ju ñaaw. président Pape Djibril Fall wax kàddu goo xam ne daf cee gaañ réew mi wala mu teg posé acte boo xam ne acte boobu daf cee gaañ réew mi lépp lu mu mës a def rek mooy même ñi mu àndal bu ñu naree féeteerlu waru ñu nar a seen dënn nar a tàng sax da di rappeler raison dalal leen ne leen politique kat du xaxarante du xasante du nangam maanaam moom discours apaisant boobu la mës a am kooku kon tey jii nekk jeune def résultat yi mu def yëpp ci arène politique bi kooku tey boo ko tàccoo waroo nekk chaque jour. ay ñu mel saa njóogu sëñ bi nekk ci deru jàmbur topp koo xam ni xam nga quelqu'un boo xam ne tu étais comédien. waaw mais non attends maanaam am nañ droit ñu ñu jàngat. je a d'accord wax dara ci réew mi nga génn wax sa xalaat ci li mu wax mais mais nekk ci nit ki jëmmi nit ki di ko topp di ko wax wax yu ñàkk solo yu ñàkk feet yoo xam ci kilifa mais ay saa njóogu ñoo xam ne sëñ bi waruñu woon sax nekk dans l'espace public di wax quelqu'un boo xam ne moo toog waxal ko boppam ne moom ci comédie la jóge comédie moo ko dugal ci biir Walf ci comédie boobu ci la dem léegi ba nekk koo xam ne chroniqueur la ñuy déglu xam-xamam ci ci politique wala ci réew mi ni muy doxee xam nga ñooñu tey ji duñ ñu war a déglu nañu xool ñoom ba président Pape Diouf Fall di def métier boobu ñu def lan la ko doon defee ak lim ci def ak ñoom tey jii ci lan lañ ci nekk te xam nga lu tax ñoom mënuñoo bokk ak moom mooy ñoom maanaam li ñuy def nii dund jaru ko sëñ Saliou Guèye ak ñi ci des li ñuy def sëñ bi dund bëgg dund jarul li ñuy def ndax euh, gis nga ñoom tey jii amul kenn ku ci sañ Ousmane Sonko génn wax dara donte baaxul d'accord ci nga génn taxaw di ko critiquer bu ñu ko defee mooy dee ñoom dootuñu dund dootuñu exister ci politiquement man mi je suis jeune je je je ne suis pas obligé d' être d' accord avec Ousmane Sonko pour exister. waaye ñoom seen existence ci boppam seen existence moo dépendre actuellement sur sur sur Ousmane Sonko. moo tax ñoom amuñu sañ-sañu je les parce que amuñu sañ-sañu critiquer Ousmane Sonko amuñu sañ-sañu wax wax sax ne ko sa sa kanam gi na suuf parce que bu ñu ko defee mooy ñoom du ñu exister te dañuy faatu politiquement donc quelqu'un comme Pape Djibril il s'est forgé seul il a tracé son chemin seul à exister avec ou sans Ousmane Sonko te ñoom ñëpp ma waxaat ko encore une fois ku ci bàyyi Ousmane Sonko torox ku ci wax Ousmane ku ci wax d'accord ma Ousmane Sonko torox sa carrière fa la jaare yàqu tekki toggeetuwoo dara donc man carrière boo xam ne danga nga ko bëgg a jël wékk ko ci benn nit mu lay diri di yóbbaale nga bëgg am buzz bëgg am tour wékku fenn rek ku wax kooku sa kanam taq na suuf sax nga bëgg a rees Serigne Saliou Gueye sëñ bi ku ne Ousmane Sonko yow d'accord ma yow sax xol bi bëgg a génn ci place mu bëgg laa mais nag c'est clair aussi hein c'est clair c'est leer la aussi jàll na voilà ñu jàll ci leneen aussi quoi euh, parlons un peu ci euh, violence bi nga xam ne fës ci campagne électorale bi hmm. euh, li ko jiitu mooy li nga xam ne moo di langage verbal bi on le sent